عليكم من كل قلق سلام ci ndiglu sang bu tedd bi ci medina baay sëriñ cheikh mohamadul mahi cheikh ibrahim Yas imam cheikh tidiane Ali aliyun sisi imam ratibu medina baay cheikh baba diallo ba kaba turki cheikh bay njogu jeng ad dairatul liwaul andi section ñengeen kër ali jey ci njiital oustaz alhaaju jeng ñooy am mbégte di leen di yëgal te di leen di woo ci cinquième édition conférence annuelle bu mag bi ñuy amal ñu jàpp ko samedi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre 2020 ca ñengeen kër ali jey programme bi nii lay tëddee 17h bu ñu xëyee danañu amal njàngum alquranul karim 16h 17h ñu dalal gan ñi 19h 21h ñu xewlu 22h 23h zikarula ñi koy animé Ousmane Gueye Cheikh Babacar Mbow Idrissa Touré Mohamed Diouf 0h conférence ki koy animé Cheikh Baba Diallo bu Kabatoki thème ba muy waxtaane yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna pare yi bay cheikhou jeeju cheikh tidiane diallo cheikh ibrahim tiam cheikh mohammed dieng marraine yi dadu bi tey diouf mbokki kon wote baa non bay ko ci hamdi so njangeen keur ali djey muri di conférence annuelle bu mak biñu amal ñu japp ko samedi ñaar fukki fan ak juróom ben ci wéru décembre 2020 ñu ngi ci It's a